brigade d'hygiène bu Louga alors tey dañ fi ñëwoon tey boo leen ko gisee comme ni ngeen ko gisee ni ma ànd ak euh, agent yi ñu ñëw tey euh, l'ensemble de la brigade vous voyez le nombre qu'on est pour ñu ñëw alors euh, xeex ak doomu jàngoro bi lu ñuy wax coronavirus bi feebaru coronavirus bi xam nga ne yemul ci Sénégal rek pandémie la dégg nga pandémie boobu nag boo déggee pandémie mooy àdduna bi yëpp la wër daf ko wër wër wërngal këpp ah jot nañu ci kaw ay ay ay ndigal yoo xam ne dan ñoo jox ay matukaay gis ngeen camion yu ñu yore ak 4x4 pick-up c'est le président de la République du Sénégal ah son excellence Macky Sall qui a qui a déboursé énormément de l'argent pour pouvoir n'est-ce pas acheter ces moyens-là et nous sommes nous sommes nous sommes bien euh, voilà euh, tey tey tey jii ñu taxaw nii fi mu nekk nii am nañ taxawaay boo xam ne bi fi mu nekk nii ah ñëpp njort nañ na fi mu nekk nii mën nañu euh, jonkonteel ak ak ak ak doomu jàngoro bi ak feebar bi looloo tax ñu jóg tey ah ci instruction colonel euh, euh, bu service national de l'hygiène Maodo Malick Diop jox ñu ay instruction avec ak moyens yi mu war a àndal ñu war a ñëw ci garage yi bu nu paree dem ci marché yi bu nu paree dem ci ci ci ci ci ci ci jàkka yi ak jumaa yi maanaam boo xaymaa loolu dafay foo xam ne fii ay ay place la yoo xam ne ay nit ñoo fay daje. nit ñooñu nag dañu leen war a aar ci feebar bi mais du yem ci aar bi rek dañ leen di ñaaxaat di leen jox ay information yoo xam ne yi yu jëm ci euh, aar seen bopp ak aar seen njaboot aar seen bopp nag mu ngi jëm ci ñetti ñetti pàcc mooy maanaam di takk masque saa su ne di di def sa euh, di def sa loxo alcogel mais aussi di raxas sa loxo saa saa saa su ne loolu nu mën a muccloo ci feebar bi pour le moment loolu loolu mesure euh, barrière yooyu rek ñuy wax moom la ñu mën a moom la ñu mën a jëfandikoo pour mën a mucc ci ci feebar bi. bi ñu ñëwee ci garage bi dafa am lu nemmeeku am nañu sol masque amul ñu sol masque jox na nit ñi xam ne nañ solu ñu masque euh, euh, ñaax nañ leen ci ñu war di sol di masque di raxas ay loxo di def alcool mais aussi am na ci chauffeur yoo xam ne ibbi nañ seen oto wax dëgg yàlla ñëw ñoom seen bopp ñoo ñëw ci ñun wax ñu ñëw leen ngeen pomper sama oto dégg nga am na ñoo xam ne fekk nañ ñu chargé ba pare mais dañ débarqué dañu wàccee clients yi pour ñu pomper leen mais Euh, par contre am na si ñoo xam ne ñi dañu dañu dañu tëj seen oto dem gisuñu leen te am ñu amuñu sañ-sañ di daj oto jàmbur ak di def leneen li ñu tax a jóg mooy aar leen ah pour buñ fi jógee fii ñu toog muy place bi nga xam ne ne mooy garage bi bu buñ jógee seen njaboot la ñuy dem donc bëgguñu ñu jële fi garage bi dara di ko yóbbu ci seen biir kër looloo tax tey ñu jóg pour euh, daan daan daan feebar bi waaw parce que suñu devise loolu la xeex tilim daan feebar